sëñ sooy bi mi lépp loo xam ne dafa am symposium buy am Tiwaawan comité scientifique bi di ko def bu ñu yónnee invitation ci sëriñ bi moom mi la yebal ak këri diine yëpp muy doomu soxna li nu bëgg ci doomu soxna nag mooy mu jàng bu jàngee ba pare mu yaru kon bu groupe Futurs Médias ñëwee tey ñu jóge sëw juru tedd wii mu ñaanal ñu am ci yaakaar nga dab nu dinu gunge dañuy taxaw waxtaan ak yow ñi nga taxawal nak xam nga len ci bayam mo sos keur gi gëna mag ci tas xabar ci ci Senegal, jël ko jox ko ko boole kook ay bayam nak, ño xamni ñi ngi fi Badou Diop ngi ni ci ginaaw ak Cheikh ay xarit ci bayam lañu di ay mbokki bayam, mu jël ay bayam and ak ñom ci liggey bi jël ci ñu ci am xalaat am ci xam-xam ci ci la bok El Hadj Assane Gueye ànd ceeg seigne Abdourahmane mi nga xamni du fekk dara lu ñaaw te señ bi kat nit boy andak ak moom xel mu rafet mu ne mu wax lako ko pour nga meuna a sa kër kanam bu dame mu def ko bo di wut xarit wut ko ki mat na xarit nit des nak moy jigen ñi ñu andal di ay jigen am yene ci kër gi ñu ñaanal leen jigen ñi yalla may leen njabot gu barkel ndax bari na lu jigen di bëgg njabot gu barkel ko gënal bu génnee ci fi nak nga gungenu fokk ñu wax ak yow yalla yalla guddal sa fan yalla sam la li nu bëgg ci diine ji ak tariixa bi te nga koy def te diko def diko yatal fep fépp di diin nga am fa bërëb yalla nako yalla yàlla li dal moy mooy kaddu yi damay jox biran mi mu wax la bi mu génnee ci néegu bayam bi mamam ji lan la yëg ndax ñaan gu nangu nga am ko ñëwaat di ñaan ci siwaat ñaan gu nangu da ngay ñaan yalla mu gëna nangu monsieur le directeur général rahim euh sëñ Souhaïbou nuyu nañ la jox la sa wacc way euh kaddu yi ma yëkkati nak kaddu cant la kaddu mbekté la ndax fi say suñ fu ñëwé euh suñ fi genn suñu xol fay fess ndax tertu bi ndax yaatal bi ndax ñaan yi euh, ko doon wax sank ap murit bu dee murit saadix la dëgg boo lox ki nga xamné mo té khalifa gi muy cheikh muntaha basiru di seigne touba fi mu xamé la kooku doy na donc euh, mang ci am mbégte di ci am contentement bu reuy te li nga def nii xeebuñu ko dé mbacké ndax sa bay bu baax bi ñaanal ñu yap ñu ñu génné di dem nga gungé ñu te ñu xam sa digënté ak mom, lolu duñu mën luddul rafet rafetlu ko di la ñaanal it yan bi oyof ci yow ndax xam nañ sa digënté ak mom. loolu weso damay nuyu ñi nga xamantene ñom la andal muy suma délégation bi euh, muy Abdourahmane Mbacké di Dom Siseni sëñ Koso di suma wóllëre di nit ku baax euh, ku sonn ci ñuy mbir donc euh, jaaduna bu ñëwee andax ñun ñu remercier ko magal ko sargal ko di nuyu itam Cheikh Abdou ndjay mi nga xamantene euh digganteeg ak suma wayjur Youssou Ndour ñëpp xam nañ ko moom it mu féete wooñu saay suñ ñëwee Touba mu taxawuñu taxaw bu am solo euh, bu loolu weesoo damay jëm nag ci ñi nga xamante ne ñooy ñi ma àndal di liggéey euh, kii feggoo sama wet ni saa su may jug fu ma munti dem moom moo may dar taxaw ma taxaw papa taxaw ma taxaw kilifa muy Abdoul Aziz mbay mam Faama comme ni ko gars yi di waxee euh, ma koy gërëm di ko sant su ma jugee ci loolu Hadj Assane Gueye kenn dootu ko présenté si réew mi ndax moom dafa di jàmbaar ci liggéeyam di kilifa doon it régulateur social ndax moom ay kaddoom day yeete ay kàddoom day defar donc man naw ko lool ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def moom ak équipe am yëpp di ab professionnel di koo xamante ne naw naa ko suma kilifa Youssou Ndour itam naw na ko waaye nee nañu euh, peccum liir bu neexee ndey jaa jàpp ca mbagg ja ñun tey sañu ñu def lii sañu ñu ñëw fii te joxuñu ñu si ndigal te ndigal boobu ci Youssou Ndour la jibe moom mi nga xamante ne mooy suma waajur moom moo tax lii yëpp ndax moom moo sanc lii tey bu demee ba jël ma euh, wóolu ma jiital ma ci li muy def euh, damay sant yàlla d'abord mais surtout di ñaan yaakar baña a tas yaakaar bañ tas yaakaar tas parce que yombut euh, nga jël sa dom jital ko bàyyi ko moom muy doxal nga nek ci ginnaw rek di jox ay conseil donc lolu maa ko ciy ci sante di sante aussi sama pap yi nga xamantene ñom la bokal liggéey bi muy njagandour wax nañ ma liggéey bu am solo bi nga xamantene tambali nako jitu na fi sax bala ñuy ñew Euh, muy jambar loolu ci yoonu murit di jambar aussi si liguey bi di remercier aussi boubendour parce que mom moy directeur des programmes bo len xolé ñun deux semaines wala trois semaines avant dañuy changer suñu programme yépp muy ci télé bi di si radio bi ngeen gis aussi chopité ci journal bi ak ci site IGFM donc vraiment ñoo ñëpp dama ci profito parce que li du bëri at ba at la pour aussi magnifier liguey bi ñuy def parce que nak futur média wax ji wax ji ab famille la waaw dañuy yëkkatindoo di tegandoo balaa nga koo xam nga nekk ci biir kër gi waaw soo nekkee ci biti nag mën ngaa xalaat mais boo nekkee ci biir kër gi di nga xam ne ay jàmbaara fi ne euh, ay taalibe fi ne ci tarixa buñ munti bokk te ñun ñëpp lan moo ñu ñor mooy diine ji gën a jëm ca kanam te ñu fësal ko wane ko ci ni mu gën a rafetee donc loolu maa ngi la koy biral sëñ bi euh, di remercier vraiment délégation bi ma àndal yëpp euh, ku lim juum mais jigéen yi ma àndal ay jàmbaar lañ lool waaw bi yoon moom gisoo ziar sax dama ne nañ jiitu ndax saay suñu ñëwee day xat ba nga xamante ne xëy na du ñu teg bët sëñ bi ba nga dina leen ñaanal ni mu leen bëgg a ñaanalee waaye ren la ko dogal donc loolu si ñu nyunsi koy ñu ngi sant bu baax di leen si remercier parce que juk 7 heures du matin nyu andak ak sa kilifa ba 20 heures bay sa sa liggéey bay sa njabot du lu yomb mais loolu ku la ko defal rek fulal na la faale na la euh, Olof dafane. dafa nit kenn du ko xeebal bësam ab kilifa bu jugee di dem ñëpp ànd ak moom day ràññee day xàmmee te groupe Futurs Médias jiite lu tolloog six cent personnes kooku du du lu ndaw du du ku dem ba jiite foofu toog foofu diiru treize ans am na loo xam na loo xamante ne yàlla moo koy sàmmal boppam donc dal ñi ngi gërëm ñëpp di sante ñëpp di ñaan déwén inshallah allah nañ fi andat ken baña manké li ñu mun daaw mun ko dawati jek yàlla nañ ko mun ren mën ko déwén te ñun yoon wi ñun triché wuñu si man yalla def na dama nek murid saadix murid ci yaay murit si pap ma ñew ñettel len nek murit lepp lu def seetuñu si dara suñ diggante sëriñ Touba la parce que ay murit lañ ñun te li ñuy defit du rek fii gàmm mooy ñëw dans un mois daañu dem am fa taxawaay bu mat sëkk bu gàmm jeexee ña nga jëm ñaseen euh, ak njaasaan bu jeexee ña nga ca chrétien yi parce que lolu le Youssou Ndour bëgg ci biir këram té lolu mom moy Sénégal benn bop la kenn mënu ko xar ñaar donc dal ñi ngi ñaan Yalla def fi jamm yok fi jamm jamm sax ci réew mi kaddu yoy dal moy kaddu yi mu bëggoon yëkëti mbacké di la sant di la gërëm te di la yóbbante encore ay kaddu cantax ngërëm ci kilifa gu tedd gi muy seigne muntaha Basiru mu yàgg fi lol te ànd ak wér jërëjëf seigne bi kaddu yaa ba pare ñaanal nag topp ci ñaan ndax olof yi nee pas-pas boo bañee mu fecceeku da ngay fas ca kawam comme góor gi fas na dundu bëgg nga fas ca kawam ndax mu bañ a fecceeku eh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillahi rahmani rahim alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا آه، سيدي عبد الرحمن يعني لي نيو آه، دلا جيتال تي نيو بي واي دي سي تك الديريكتور جنرال بيران نور اك مبولم خليفه جي اف ام ولا جي اف ام يمو يمو اندال di am mbégte bu baax a baax ci gisaat leen eh, ngeen ñëw ci bisub cheikhul xadim bi nga xam ne mën nañ ne bàyyiwu fi lu ko gën a ñor bis bi waaye ñu xam ci lu wóor tamit ci lu dul njort eh, moyens yi ngeen déployé ngir couvrir lépp loo xam ne dafa soxal màggal moo xam ci wàccaay wi la wala ci bisu màggal gi ci jëmmi boppam wala bu màggal gi jàllee mu màggal ba ca suba sa ca cérémonie baag ya ca aju yëpp euh, couverture bu daj bi nga xam ne moom ngeen ni def ak la ngeen ci déployé ci ay moyens yu baree bare loolu lépp sëriñ bi xam na ko njabootu cheikhul xadim gi xam nañ ko taalibe yi xam nañ ko waaye réew mi tamit xam nañ ko ndax sëriñ Tuuba Euh, réew mi ñoo ko moom du ma ne sax réew mi waaye dama naan àdduna ñoo ko moom ndax dafa bokk ci ñi nga xam ne àdduna euh, day ndamoo nekk gu ñu nekk ci biiram hmm. waaye rawatina nag ci àdduna bu amee ay pàccaat euh, Sénégal day ndamoo nekk gi nekk ci biiram comme ni nga xamee ne kilifay diine yi ñu ràññee ci réew mi ñoom réew mi da leen ndamoo ci jagle gi suñu borom jagleel ko réew mi kon loolu moom ñu ngi ciy am mbégte bu baax a baax di leen sant waaye di tàmbalee cant gi ci euh, euh, sa waayjur nga xam ne liggéey bi bu ngeen amee kàttanu man koo def day joge ci xalaatam ak ci man-manam euh, loolu sëriñ bi xamee na ko noonu ndax moom ak ak ak jokkaloom ak sëriñ bi yamul rek ci màggal waaye yaakaar naa ne lu ñaari weer euh, bi sëriñ bi nekkee Jurbel ñëw na fa seet si ko loolu yàggul yaakaar naa ñoo àndoon waaw booba dafa fekk ma génn waaye yëg naa ko njëkk muy ñëw sëriñ bi yónni woon ma kon loolu li muy tegtale mooy euh, ak jokkaloo gu dëgër gu am ci diggante waajuram ak sëriñ bi ndax euh, waajuram day kilifa day kilifa ci réew mi te bu yemoon ci liggéey bii nii mu def nii rek jël kër gu mel nii ci xalaatam ak ci man-manam mu taxawal ko ba mën a jël ci ci doomi réew mi lu toll nii ñu fay daan seen doole waaye di fa fesal diine ji di fa euh, euh, di fa fexe ba réew mi am ak bennoo aku ku jokkaloo ak ku rafetoo loolu yaakaar naa ne amul benn liggéey bu ko gën a rëy ci réew mi te euh, yéen yaakaar naa ne kenn ku ne mën na seere ci yéen ne maanaam presse bu responsable ngeen bu xam ni ngeen war a taxawee bu xam ni ngeen di fexe ba euh, li ñuy wax jàppaloog réew mi muy cohésion sociale bi ñuy wax wala euh, bennoo gu réew mi war a bennoo bokk fu ñu jëm euh, te fa ñu jëm foofaat di njariñul ñëpp yéen yaakaar naa ne yéen a nga cay bay seen waar ndax mbir mu ne presse ak communication dafa am lu mu ca mën a taxawee te yaakaar naa ne loolu njariñam kenn du ko du ko sikki sàkka kon ñu ngi leen sant ci taxawaay xam nañ ko bu baax a baax bi xam na ko njabootu Cheikhul Khadim bi xam na ko comme ni ma ko waxee sànq taalibe yëpp xam nañ ko ñu ngi leen di sant leen ñaan taxawaay bii lu ngeen ci man ren bu déwénee ngeen mën lu ko ëpp yéen ñi nga xam ne yéen a koy taxawee te kenn ku ne di ci feeñal sa yéene bopp suñu borom sàmm leen taxawu leen suturaal leen dool leen ak wér ak man-man te kenn ku ne objectif yi nga am ci àdduna suñ borom defal la nga réaliser ko ci anam bu ya gëna rafet ya dañ fekk ko at yu bare bare ya suñ biraan nak mom maa ngi koy wax sank day xaritu sama xarit kon sama xarit la moo tax yaakaar bi fekkente nañ sax ci kër koka loolu motax sank mom wax suñu abdi ne nako mu nuyu ko mhm. <laughs> waaw waaye am nañ mbégte ci ci nekk ak yeen ni di joxe kaddu yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu Amin. Selera, Sira. Yarayacak. Yarayacak. Yarayacak.